jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy rafetlu seen ànd ak seen site dakarmatin.com dellu si wat di leen dégtal seen chronique di waxtaan woo xam ne dañ koy def ci mbiru réew mi ñuy tàmbali ci njëlbeen di baalu àq ñëpp di baal àq ñëpp di wax ne suñuy kàddu yëkkatiwun ko ngir ŋàññ wala wax lu bon ay nit yàlla ñu ci yàlla musal li am solo mooy wax ci réew mi ci kaw dëgg ak it tey seen chronique dama bëgg waxtaanee benn mbir boo xam ne am na ci réewum senegal ñépp noppiwaale ko mu di lan ci 2012 2013 dafa amoon mbir boo xam ne dañ ko gisoon fii ci réewum senegal muy resource naturelle bu am solo ñu koy woowee zircon dem leen seen site internet yëpp ngeen tàppe zircon Sénégal di ngeen gis. xibaar boobu ba mu génnee xeltukat yëpp ak gëstukat yëpp yu yëngatu ci mbiru zircon dañ ci Sénégal gis nañ fi benn miin boo xam ne day may Sénégal mu nekk ci àdduna bi yëpp ñetteelu dëkk bu am miin bu gën a rëy bi mooy ñetteelu miin bu gën a rëy ci àdduna bi yëpp ci Sénégal lay nekk nekk ci dëkk bi nga xam ne ñu ngi koy woowee jogo te buñ ko exploité ci àdduna bi yëpp mën nañoo wax ne 7 pour cent yi ci Sénégal lay génne moom ay société étrangère yu am doole yu duggoon ci mbir moomu amoon na ay société australienne ba tey ji ñu ngi ciy yëngu ak ay société française lu tax nag may indi wax jooju boobu ba léegi dañ ci seetlu tekk tekkaaral nguur gi yëkkatuwul benn kàddu leeral askanu Sénégal mbiru zircon boobule lan ci koppar la jural état bu Sénégal déedéet moo ne de ñu ngi koy exploité bu baax a baax ba jur coow ci village yu jogo boobule ndax dañoo nangu ay toolu jàmbur ci village boobule saa boo déggee sax société australienne bi di ci wax MDL day wax ne zircon boobu dañ koy utiliser pour defar ay carreaux céramique ay articles sanitaires toilettes, toilette salle de bain ay éviers, loolu wax ay articles de table comme ay assiettes ak ay tasses. foofu rek lañ ci yem ci bu ñuy leeralal askan wi ndekete beaucoup de ko gëstoo bu baax a baax dañ ñuy nax dañ ciy wax sax né industrie pharmaceutique yi dañ ko utiliser pour yenn yuñ ci djublu ñu ne am luñ ci utiliser lu tudd ilménite yooyu dañ ko boole seeni colorant di ko soofandil du dëgg ca booba fii ci Sénégal société bi ñuy woowee Tésir mi ngi yor troisième réserve mondialu zircon ci wàllu ilménite ak rutile potentiel bu mine boobu yor mu ngi toll ci trois virgule deux milliards de tonnes ci ñaar fukki at ak juróom maanaam buñ ko exploité bu baax dina toll ci 3,2 milliards de tonnes ci ñaar fukki at ak juróom ay xayma yu leer la pour ngeen mën a natt bu baax li nga xam ne moo di zircon day xaw a nuroog jamaa minerai bu raar la cher bu ñuy wax na melax-melaxaayu jamaa mi ngi toll ci virgul 2,4 bu zircon ñi ngi koy méngale ci 2,2 kon jege woon nañ lool waaye dañuy nelawal ci zircon boobule ànd ci nag ak ñi ci war a wax ñaar mooy mën a am ñu xam ko lëkkalikook ñoom ci loolu walla xamuñu ko ñu war leen yee ci alal ju bari ji am ci mbir moomu le dañ ciy nax bu baax a baax dañuy wax ay terme scientifiques waaye mbiru zircon dafa am leneen lu ci laxasu lu ñuy wooyee ñoom mu nekk lu ñuy jëfandikoo bu baax a baax zircon boo ko amul doo mën a def nucléaire satelit doo ko mën a defar navette spéciale yi ngay dégg ni ak ay avion yooyu yëpp dañuy soxla jëfandikoo li nga xam ne moo di zircon kon ñu d'accord na am na doole lool tey jii fi may wax ak yéen ci biiri gëstu Sénégal mi ngi fournir benn unique centrale européen cent pour cent lu centrale européen boobu tudd Tyssedal nekk sa Norvège lépp lu mu soxla Sénégal moo koy jox cent pour cent benn centrale européen moom moo am mi ngi tudd Tyssedal nekk sa Norvège kookule propriétaire TTI la TTI mooy Tizir Titanium and Iron kooku GECO moo ko moom loolu yëpp ay gëstu la ba xam mbiru zircon bi lan moo ci laxasu Eramet di beneen société française dafa ànd ak Tizir ci mbir moomu ngir mën a lépp luy titan jëm ci industrie aéronautique te lépp lu soxla ñoom ci mbiru zircon ci biir Sénégal lañ koy tibbee yóbbu ko ci centrale boobu nga xam ne ma nga nekk ca Norvège ñu koy wooyee Tisedal waaye li jaaxal nit ñi moo di ba tey jii dégguñu nguur gi yéeg ci yàbbi ci te loolu mi ngi ci suufu Sénégal ñu koy exploité demal mexe raay ba fa jógee directement ci port de Dakar la ñëw te ñoom ñoo koy contrôler mu nekk scandale bu réere lu ñu jaaxal moo di lu tax nguur gi noppiwaale ci te alal ju bari mën a jógee foofu ñu dugal ko sunu gafaka yenn ci tolof tolof yi nga xam ne ñu ngi koy am nu mën ko cee saafara GECO bi nga xam ne mooy exploité mbir mi lu tax nguur gi duñ ci leeralal lenn dañ ci dellu wat bu baax a baax dafa mel ni lu ko neex mu def ci zircon boobule nguur gi na patt pataaral eremet boobu ma leen wax dañuy xayma ñu ne chiffre d'affaires am trois mille deux cent milliards d'euros la te maa ngi leen di wax ne lu ci ëpp ci unité centrale bi nga xam ne ma nga ca Norvège Sénégal moo koy ravitailler à cent pour cent nous avons 3 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Maintenant, ce que je veux c'est Le Sénégal, combien de participer à ce le veut le volume d'exportation, que vous savez, c'est qu'il est venu ici, c'est 80 000 tonnes de zircon. Ce n'est livre de volume d'exportation que le Sénégal de Siwol. Nous avons le titanium, que vous savez, c'est qu'il est l'aéronautique. toll ci six mille tonnes lu tax boob ba léegi nguurug Sénégal bind ko muy alal ju bare bare baree bare boo xam ne mi ngi génn ci zircon bi toll ci ay milliards yi milliards yi milliards waaye doo dégg benn yoon nguurug Sénégal wax ko te pourtant ña dëkk ca jogo teñ ñu randal leen nangu seeni tool ndax gis nañ fa ressource boobule ñu ngi nekk ci ay tolof tolof kon beneen débat la pétrole bi ñu ngi koy wax gis nañ pétrole bi exploité guñ ko wante lii ñu ngi koy exploité mu toll ci ay milliards yu bari lool di génn fii ci réewum sénégal ñëpp d' accord na sénégal moo yor ñetteelu mine bu gën a rëy ci àddina bi ñëpp d' ci ñu ne 7 pour cent production mondiale bi yépp mi ngi jógee koo sénégal am ay société yoo xam ne ñu ngi koy exploité fii ci réew mi di am ay milliards yu bare baree baree bari du ko dugal ci nucléaire yi si satellite yi lépp waaw Sénégal ñaata la ci am est-ce que jaaduwul ñu laaj leen ko loolu débat la boo xam ne mu bëggoon ñu poser ko laaj leen zircon bi lan lañ ciy gagné loolu day indiwaat beneen débat mooy débat bi nga xam ne dañ koy wax ci wàllu phosphate bi wàllu phosphate bi ci temps un dafa homme d'affaires yo xamne dañ leen defal ay contrat ñu seug ci phosphate bi exploiter contrat yu doy scandaleux laati ñu jël nguur gi ñom waxon nañ ne nguur gi contrat dañ koy contrat mi homme d'affaires yo xamne sax ngi leen plainte jamono Abdoul Mbaye ba def li nga déclaration de politique générale député posé woon question mu ne ko contrat phosphate Yep, dinañ ko lijjantiwaat fi may wax ak yéen ci diggante Bambay gis nañ fa phosphate bu bari lol compagnie sucrière sénégalaise Le na ak ay australiens fas yéene ko exploité laata ñu ko exploiter. xana war nañoo léral sénégalais ni gis nañ li ci mine ci phosphate. nii lañ ko fas yéene exploité ñii lañ ko jox ci bii anam lañ leen ko joxee contrat bi lii la ak lii la ndax nag phosphate bi ñuy lijjanti fii ci Sénégal di ko exploité exploitation boobu lan la ci njëriñu Sénégal boo demee maatam ña nekk ca maatam dañuy jooy ba bëccëg ndax jafe-jafe yu ñuy am ñu leen ñi naxee jëlee étudiant jox leen ay cadeau wax lii jël lii jël leen président en charge déedéet. waaye waaye boo génnee cent millions te yow yaa ci am plus de cinquante milliards ci phosphate bi da nga koy naxee ay nit kon contrat yooyu yëpp dañ ko war a tegaat ci taable bi loolu tax ma ne la pétrole bi ñuy wax tamit opportunité la pour ñu poser sur la table Sabodala or bi Sénégal lan la ci gisee boppam est-ce que ñu poser le débat ñu génne contrat yi ñu xam contrat yi ñan ñoo ko séq

Macky Sall président de la République jëlé nguur gi ñu songon ko fi mu nekkon ci biir parti démocratique sénégalais ne dossier yu ubbi yépp laatu ñu jëm ci élection législative pour bundu xatal parti démocratique sénégalais la am na lu mu yàkkoon euh, ki nga xam ne moo di président Macky Sall ma dëgtalaal leen ko ngeen déglu kàddu yooyu doy dafa doy ñun kenn duñu xoxatal lu ne ñu koy fexe dañu jànnaxe te ko ubbeeguñu sax campagne ñu ni na lañuy ñuy def pour jéem a nasaxal gaa yi ñu ni nañu yëkkati ay coow ay wax ay kàcc rek kàcc cëfër cëfër ji ak yëngu yi nga xam ni ñu ngi koy def yépp naan ñu ngi ubbi dossier dossier Karim Wade dossier Ousmane Dom, dossier Awa dossier Madické ak keneen ak keneen ak keneen Lolu c'est parce que nous dañu xamni campagne électorale bi bu accès ñu wéru ci kanamu Sénégal parce que li ñu nous woon mënuñu ko li ñu digge woon ko ñu ni balay campagne bi électorale di nous nañu indi coow ndax dëgg fait. voilà la vérité lolu. Sénégal yëpp mën nañ ko seede kon tey jii suñu jógee ni Macky ci ñeenti at walla juróomi at am na ci alal joo xam ni ay milliards ñeent wala juróomi milliards ak la mu waxul ak la mu wanewul te ñu ni ñi ko ñi ko ëpp liggéey ñi ko gën a liggéey ñu am sax téeméeri yoon buñ ko xaajoon li Macky Sall am mais c'est un gros point d'interrogation bala ñuy laaj kenn moom la ñu war a jëkk laaj man fonk naa jigéen lool moo tax bëgguma sax wax si jigen, mais soxna bi nga xam ni toog ci biir kër gi rek lañ ko xamal comme liggéey xëy suba ni am ñaari immeuble te Awa di liggéey nekk cadre compétent universitaire depuis des années et des années té kenn mënu ko xamal ñaari kër wala ñetti kër waaw fan lañ ko jëlé nañ ñu ko wax nañ ñu ko wax fuñu ko jëlé fuñu ko jëlé fuñu ko jëlé yemutoon ci lolu amna na geneen kàddu goo xam ne defe naa ne moo gënoon a ñaaw waxoon na ko ñu déglu loolu. aujourd'hui enrichissement illicite ou de délinquance financière Macky Sall et son gouvernement sont pas de la délinquance financière, c'est du grand banditisme financier. Parce que son Premier ministre a dépassé toutes les limites. Il a dit, il a avoué, et les juristes, les avocats le savent, l'aveu est la mère des preuves. Il a avoué devant tout le Sénégal, oui, j'ai blanchi de l'argent, mais au moment où je le faisais, la loi sur le blanchiment n'existait pas encore. Mais la loi sur le vol existait déjà. La loi sur le recel, complicité de vol, existait déjà. kon notre monde, d'Aïsak, sàcc la nday sàcc dañoo nday sàcc nday sàcc loolu adduna bi yëpp condamné kon avant de parler de qui que ce soit il faut d'abord qu'on s'adresse à Macky Sall et à son Premier ministre, qui sont les plus grands blanchisseurs. kon tey jii waratul am ci bir parti démocratique sénégalais waye famu jëm la ak ñam wara a ànd ak ñoom ñoo wara xamné xam ak si biir bés bu nu ak mom ak luñ mën ta defit ci bir neek mun xëyee suba bo leen sagganul ci mbedd mi lay lay téggu té nak defe ku nekk ci nguur. war nga jombalé di def yenn di len sante di len gërëm di len dig dajé ci benen chronique sen site dakarmatin.com inshallah